yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la santen ci yàlla bu baax jëen ci kenn mag secret baa secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 bu ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala àndee murtadiyan an zahbihi sawil kamal yaasal bilaadi wal ibadi wal jamal garaam ba mu waxee moom sëriñ bi wax ak boroomam ci munaajaat yi may diyante ak boroomam tabaraka wa taala na nanga na nga ci yonent bi na jotol jotal bi li nga xam ne moo di mbébétam te bum ci am benn coona ak muy wëndeelu di ci dem fenn nang ko ko jox mu amee ko noonee loolu nag moom lay wéyal moo tax ma ne murtadiyan mbir moom ngay aji gërëm nag an zahbihi wali sahabaam ya sawil kamal ñay borom mat yaasal bilaat yow yàlla mi borom réew yi wala ibaadi ak jaam ñi wal jamaal yi ak taar yow sun borom gërëmal mbooleem sa ay saxaabaam moom yonent bi ndax saa su ñaanlee yonent bi du fàtte saxaabaam te sunu borom nee na ñoom ñëpp làq nañ ngërëmal sunu borom moo xam muhaajiriina ak ansaar yi wallazina haajaru fi sabilillahi suma xutiloo aw maatu ñooñu la yarsuqunahum lahu risqan hasanan ndax wa inna laaha lahuwa xayru raasiqin te la yuddaxilannahum madaxalan gis nga yar daw na foofu madaxalan yar daw na foofu mooy aljana foo xam ne buñ fa duggee danañ ko gërëm ta dootuñ fa génn mukk yàlla wax na ci barab yu bëri ñoom ñëpp gërëm na leen xara radiyallahu anil muminina is yu bàyyi oonaka taxta sajarati ndax fa alima fi xuloo bi moo tax fa ansala sakinata alayhim wa asaabahum fatan xariba moo ta sëriñ bi ne na nga gërëm ay saxaabaam yi nga xam ne borom mat lañ yow mi moom réew yi moom jaam ñu nekk ci biir réew yi waaye yow mi moom itam may yi yow moom taar ndax yàlla buy jëflanteeg nit di ko gërëm taar boobu lay jëflanteeg moom moo tax toujours day ñaan yàlla muy jëflanteeg moom ci jëmilam yàlla bu gërëmee ab jaamam jëmmil lay jëflanteeg moom bu fekkee gërëmut ak jaamam jëlil lay jëflante moom ndax da koy da koy teg ay ak i comme saxaaba yi nag aajuwuñ teg coono ak métti ndax laq nañ gërëmal yàlla mu ne ko wal jamaali sëñ ko dégg la baarik na nga barkeelal bi jaahil Moustapha ci darajaay ko ñu tànn ka fii san nisaam ci bii wëy waccalu yàlla na ko def min baay bi ayaadika mu bokk ci buntu sa xéewal yi alansaam yëda wëy màgg yàlla maa ngi lay ñaan ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga barkeel ci darja yonent bi xasiida gii nga xam ne mooy la ilaha illa allaahu muhammadun rasulullahi la ko sëriñ bi tënkee dégg nga mu ne yàlla na ko barkeelal na nga ko barkeel waxoon naa la mbir mu bu amee barke rek lépp nga ca waaye su fekkee amul barke rek day mel ne dara nekkul ca barke du ak jëmm waaye jëmm jum nekk rek dañ koy daal di xam ca sansa mu ne kon yàlla na nga barkeel xasiida gii ci darja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla na nga ko def mboolem say xéewal yi xasida gi doon bunt ba ci gën a màgg bañ koy wutee nga xam ne kuy wut xéewalu yàlla mën ngaa ñëw ci xasida gi maanaam jaar ca di ko jàng da nga daje xéewalu suñu borom yi subhaanahu wa taala su fekkee bàyyi fa ko kon loolu lu ci mata mata mata mata mata bàyyi xel la yàlla nu yàlla fayal bu baax a baax ci waxtu ne ci jamono ju nekk aati nabiyi almustafa xayri salaam baxda salaatin wal tubaarik fi lxilaam aati na nga dikkee anabiya bi sallallahu alayhi wa sallam al Mustafa kada kuñ tànn xayra salaam gën ci ak sëlmal baxda salaatin gannaaw julli wal tubaarik yàlla nanga nga barkeelal fil xilaam ci li nga xam ne mooy xalima gi xalimaam gi muy bindee moom lay wax yow suñ boroom subhaanahu wa taala na nga dikkee yonent bi di Mustafa ngën ci ak sëlmal ganaaw ba nga jullee ci moom nanga nga sëlmal ngën ci ak sëlmal ca moom nga jëlee ko ci man mu mel ni maa def ndax lottu naa ca waaye sama xalima yi may bindi nga xam ne damay julli di sëlmal ci moom nanga nga barkeel xalima yi moo tax xalima yi liñ bind yëpp xasida yëpp ay barke moo ci nekk ijxal defal xilaamiye samay xalima ka ahmaali sihab mu mel ni ki jëfi mboolem ay saxaabam yaa man kafaana yow mi nu fegal durarihin loru ngalaw wa saxaab ak niir niir yàlla defal samay xalima yii may bindee li ci nekk ci yool li ci nekk ci payoor mu tolloog jëfi saxaaba yi na yàlla sante seen jëfi ba ñoom ñëpp mu dig leen aljana sama xasida itam kasaalika noonu lañ mel moo tax ku jàpp ci xasida yi rek da ngay am yoolu lu saxaaba liggéeyoon ci diina nga man koo am yiwit ndax xasida ku koy jàng yaa ngi jihaat na saxaaba yi doon jihaatee yaa ngi jaamu borom bi subhanahu wa taala yaa ngi koy ñaan yaa ngi koy koy sant di ko tudd yooyu yëpp dafa dajee ci biir xasida ak yeneen yoo xam ne nekk na ci yoo xam ne dañ koo lëm dañ ko nëbbu ba woy jàng ñi xamuñ ko mbindeef yi xamuñ ko lurut kerek bis penc rek la ñuy xam dëgg-dëgg lan mooy njëriñu xasida moo tax mu ne defal samay xalima mu mel ni jëfi saxaaba ya tolloog ñoom ci yool dégg nga yow yàlla mi nu fegal mboolem ngelaw goo xam ne dafa ñëw ngeer lor doomu aadama wala niir woo xam ne day taw di sotteeku ngir lor doomu aadama wala ay melax yëpp yaa nu ko fegal kon nag defal xalima gi mu tolloog jëfi saxaaba yi awsil na nga jottali lil muntaxaa ca kañu tànn ka jami xamaa mboolem lépp loo xam ne yëf yi dana dikk min xidamin ci ay liggéey mi nii di bay ci man wa amin ta yàlla na nga sécuritél wa amin ta yàlla na nga wóoluloo fii yëf yi sama wàll maanaam waa fii mooy lu bokk ci moom rek dégg nga na nga jotal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy muntaxaa mboolem loo xam ne xidam la ay liggéey yoo xam ne dafa bàyyi ko ci samay xalima lépp moo xam muy julli ci yonent bi wala mu di ko tàggal lépp nanga fexe mu jot ca waaye sama wàll na koy garanti di ko sécurité ba lépp luy fitna bu ci juddoo mukk wala bu mu fi ñëw. xadayta nii gindil nga ma sa bopp. hidaayatal muntabisa kem gindeeku aji sànneeku ja min ahliha tukkeekoo fa ñu ñam asabta dàq nga laj-laj muntabisa mu doon lu ñu sànni dégg yàlla yaa ma gindil sa bopp comme ni nga gindeekoon ndaw sa nga xamee ne mooy sayyidatuna maryama radiyallahu anha bi mu ëmbee doomam ju tedd jo di sayidina Isa ibnu Mariama toog ba yàgg rek suñu borom dogal la muy dogal ci moom xisa bu gudd la waaye dañ koy li sëriñ bi di wax fii rek lañ bëgg a nettali nanga xamee ne suñu borom gindixoon na yaay ja ba mu ëmbee doom ji de ta amul way jur wu amul amul benn jëkkër ndax wala miyam sas nii basarun mosu jot ak benn góor te amul jëkkër itam toog toog ba yàgg rek yàlla dogal la muy dogal ci moom mu ëmb ko te moo ne bu demee ci ay mbokkam danañ ko xas ndax dañ na ko maa kaanata ummuki baqiya yow de li nga def say mbokk mosu ñuy gis kenn ku ko mas a def jëf ju ñaaw ji muy njaalo mi nga def loolu mosu ñuy gis kenn ku ko mas a def ci say mbokk sa mbokk ñëpp ñu baax lañ yow tey gàcc gi dal na lan yàlla digal ko nag na ko boo demee bul wax ak ñoom ini nasatul rahmaani sooman fa lana ukalima yawma insiya mu ne damaa nasiiral yàlla woor tey du ma wax ak kenn maanaam du woor di nga xam muy ñàkk lekk ñàkk naan waaye woor ci noppi la waaw ah, tey daal duma ma wax ak kenn ndax su fekkoon ne bi mu ëmbee doom ji ba noppi ñëw ci ay mbokkam ñi di ko xas daf leen tontu kon mën nañ koo gàcceel mën nañ koo fitnaal waaye yàlla na ko bul wax mukk dem ba yàlla dogal li muy dogal ci maam muy imbi doom ji doom ji ci boppam moo seetal boppam ne man jaam ak yàlla boo xam ne yàlla moo ma jox téere dégg nga ak yëcca nekk yëpp inni abdullahi ataaniyal kitaaba gis nga moo tax sëriñ bi sunu borom nam gindeewoon yaay ja ba waxut ak kenn ba doom ji ñëw setal ko te bu fekkoon yaay ji wax na te doom ji juddoogul konoon problème bu rëy mën naa am mën naa judd ci pénc bi yàlla ginde ko nag mu noppi rek nee nga xam ne la ma jaayantoon ak moom mu doon laaj fanweer ak ñett lépp sànni naa ko dootuma ci dellu yàlla gindi na ma ci moom te loolu moom fàtte naa ko na xamee ne suñu borom noonu la gindee woon sayyidatuna Mariama bi mu xëmbee ki nga ki nga xamee ne mooy doom jaxen saa moo tax mi ne xadeeti ni gindi nga ma hidayatal muntabisa kenn gindeeku aji ja min un lay ko ci ñoñ ña asabta dàq nga laaj fanweer ak ñett muntabisa mbir ma bu doon lu ñu sànni maanaam la ma jaayantoon ak yàlla dafa toll léegi nag loolu sànni naa ko loolu dootuma ci dellu mukk loolu waxoon naa la mooy xeeti furu yi nga xam muy yu neex yi moo xam muy banaana ba moo xam muy pomba lekk yu neex yi nga xam ne furu la nga xam ne day meññ yëpp sëriñ bi dafa jaayantoon ak borom na du ci du ko lekk mukk ngir nootee ko kanam ndax dafa xamoon ne moom sëñ Tuubaa bu fekkoon ne day lekk furu yi da ciy yëg bànneex da ciy yëg yëg yëg te moom dafa xaram ci boppam maanaam muy yëg beneen bànneex bu bokkut ak digganteem ak borom tabaaraka taala wa jaxta te jëbale nga lii ci man sama naxaa seeni njëg gis nga kon lam jaayantoon ak yàlla ci xeeti marchandise na dootu ko lekk yàlla da ko ca faye ak njëg mu ne yàlla jox na ko njëg askuruhu ca wakaan xaqan wa askuruhu wa qaadilin abdala kama kafaanil ji jidala kon sunu borom wajaxta jëmale na lii ci man sama naxaa seeni njëg loolu mu xaraamal ci sama bopp muy fanweer ak ñett yàlla jox na ma njëg wa wajiha wa wajiha woo jihaat te jëmale na ilaa si waaye mu daw jëm ci ku dul man xaddaha seeni lim ya mu tajiha mbir moom muy aji jublu ci man maanaam njëg ma yàlla fay lépp lépp maanaam seeni la nga xam ne mooy lim ba muy fanweer ak ñett lépp yàlla da ko màgg mu jëw ci mu daw jëm ci ku dul man te dootuma ko jëfandikoo mukk ba noppi mu jox ma jëmi njëg moo tamit wajjaha jëmale na ilaa siwaaya mu daw jëm ci kudul man xaddaha seeni lim muy mooy laaj bi fan fanweer ak ñett mu tajaha mbir moom muy aji jublu kudul man nga xam ne daal dafa bëgg wax na rek amatut soxla ndax jox na jot na ci njëg gi kon marchandise bi da nga bëggatut ko xeeti furu yooyu sunni nga ma wasunu yàlla na nga ñoŋal maxtiira la tànnalees nga ma ko lii ñeel ma xan mafsada walis lépp lu yàqu-yàqu wala tuwajjih te yàlla boo jëmale lii ci man xeddan benn noon aw xasada wala aji kañaan yàlla man sama bopp sàmmal nga ma sa bopp aaral nga ma sa bopp ñoŋal nga ma sa bopp protéger nga ma sa bopp waaye nag li nga ma tànnal bu ci dara mën a yàq na nga ko protéger dax nit ki dana ñoŋ waaye du tee ko yàlla tànnal nit man na ko yàq moo tax ma li ma tànnal nag ma ko ñoŋalal ba képp ku jóg di yàq du ci man dara waaye képp koo xam ne am noonu la boo xam ne dafa maa noonu mën Sëriñ Tuubaa wala mu kañaane ma ngir ni ngir ni nga xam ne yow suñu borom moom nga ma def ma sut nit ndax maa kañaane yàlla kookee na nga ko màgg mu daw jëm ci kuréel man moo tax ma ne wala tawajjih yàlla boo jëmale lii ci man xeddan benn noonu aw xasara wala aji kañaan xàkk mu yow yàlla muy aji xatt ji ju tabe nga lii ñeel ma bi xayr xikam ci ay xikam wàccal yàlla nga def fu aadi sama xol sarfa sikirin muy ndàmbi téere bii di alquran mu kami bare buñ xareñee yàlla yow miñ aji xatt ji nang ma may ngën ci ay xikam xikam mooy xam-xam bi nga xam ne mooy ëpp doole ci xeeti xam-xam yi moom la suñu borom waxoon yuutul hikmata man yasaau wa man yuutal hikmata faqad uutiya xayran kasiran wa maa yasakaru ila ulul albaab suñu borom nee na kuñ jox hikma jox nañ ko yi mu bëri dégg nga waaye nag wa maa uutiitu min al-ilmi ila qaliil bu dee xam-xam dañ na ko yónente bi joxe suñ la ci lu dul lu néew ci xam-xam waaye lu néew loolee ñëpp xaj nañ ci xam-xam lu muy tudd tudd yaatuwul waaye terewul ñëpp xaj nañ ca hikma nag mooy xam-xam bi a xam ne mooy xam-xam ëpp njëriñ moom la suñu borom joxoon luqmaan nit ku baax kooku wala xad aatayna luqmaana hikmata an uskur lillahi wa man yaskuru fa innama yaskuru li nafsi kon hikma ku ko yàlla jox war nga di sant sa borom subhanahu wa taala moo tax ne yàlla yaa ma may ngën ci ay hikam te yàlla na nga def sama xol muy ndam bi téere bii di alquran mu mel ni daal al alquran ci boppam sama xol ci boppam mooy ndax di ko denc alquran ji nga xam ne suñu borom da koo xereñee ci solo lu fàddu ndax ayatun muhkamatun hunna umul kitaabi wa uxra mutasaabiha ba di yow yàlla muy aji fent ji xab na nga may lii ñeel ma an akoona an akoona ba danaa nekk ak akbara di aj màggal ayaati baaxin say ay yow yàlla mi fee sax ba faw dégg nga yu baax yi ba dana puukure xoo bii ci sama jëmm ji alkubara mboolem way màgg ji alkubara u waaye dañoo xasaf xam sa gan yàlla yow mu fent lépp ta xooloo ko fenn na nga may fu ma toll di màggal ay alquraan yi fu ma toll di ko màggal ci waxtu ne yow mi nga xam ne yaay ko fee sax te doo faatu mukk waaye nag nga xam ne su ko defee mboolem gaa ñu màgg ñëpp ñu tedd ñëpp dañ may puukurewoo man sëñ Tuubaa fu ñu mën a nekk rek dañ may puukurewoo xadamtu màbbu naa baatilan tabaxuk neen bi xaqin man ko màbbee martoob dëgg Yustafa góob tànnees na ko dégg nga dégg nga waaye nag xadiman mbir moom may sax dàkk di liggéeyal dina bi ñeel kañu solo ko almustafa kadi kuñ tànn bi ci sa kàttan yàlla yow suñu borom ci sa kàttan de ci laa jéggi ba tabaxuk neen gi fa sosoon doon ko fi tabax moo xam ñi tabax ko fu mën a nekk ci réew mi rek fexe naa ba daani ko waaye maa ngi ko daane ci mortub dëgg fekkuma caaxaan di caaxaan ba caaxaan daanu waaye damaa fekk caaxaan jaar ci dëgg ba daani caaxaan moo tax na xadam tu màbbu naa baatilan tabaxu caaxaan bi ko ci sa kàttan bi xaqin ci dëgg goo xam ne Yusufa tànnis na ko dëgg gi nga tànnal yonent bi salaa salaam daal ci laa jaar rek ci sa mbaax ba màbbu neen waaye xadiman mbir moom ma sax dàkk di liggéeyal li na bii ñeel ko ñu solo ko almutawaka di kuñ tànn kon liggéey bi muy liggéeyal yonente bi ci la man a màbbee lu dul neen loo xam fekk na fa ñi sos ko gannaaw yonente bi loolu ci la ko mën a màbbee tu baati leen bi xaqin fa saxax wali illahi kan sa sax yi daax boo demee ci wakkanaa xal wax na ko xasida googu kon noppi na ñi dugg ci geneen xasida gu nuy wax lillahi lamru min qablu wa min baxdu ma nga nekk aaya jooju ku ne xam na ne ma nga nekk ci sóoratul aroom dégg nga ci la nekk yàlla day wane rek xare moomu mbir yëpp kay gañe ak kadut gañe yëpp moo ko moom ndax ñaari giir ya nga xam ne ñoo ko séqoon moo xam arab yi wala waa faris ya yàlla dogaloon arab yi dañ leen njëkkoonu duma suñ borom subhaanahu wa taala nag ci làmmiñu yonent bi dig leen na da ngeen leen duma yéen it comme ñoo leen ndax yàlla moo moom mbir yi moo moom mbir yu njëkk ak yu ca gannaaw yëpp nag arab yi daal di dajewaak waa faris daal di leen duma duma bu metti moom nga jàgg mu ne wa yawma isin yafrahul mu'minuuna bi nasrillahi yansuru man na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon lillaahi ñeel na yàlla al amru yëpp min xam la moo xam yu jiitu wa min ak nekk ci gannaaw di dikk yëpp yàlla moo leen moom yàlla daa moo xam la xaw dégg nag baat yi moom la jël tënkee ko xasidi gi ñuy bëgg a dugg mi ngi tàmbalee lillaahi ma katabtu qabla taxliya kal haali wal maali baxda taxliya lillaahi ñeel na yàlla kott kott kott maa katabtu lépp loo xam ne bind naa ko xablu ci lu jiitu taxliya ak rink rink mooy ragal ba nga seet wicc kalhaali ki tay ji wal ma ali ak delluwaay ba baax da taxliya gannaaw ba ma raggee ba duyal ma ay ndabi ngëneel yu bari bay baax da taxliya gannaaw ba ma takkaaye leen li nga xam ne moo di ay ngëneelam nee na ñeel na yàlla lépp loo xam ne bind naa ko lépp dama ko jëmee ci yàlla ndax moom moo ma rink ci lépp lu ñu taamul ci ab julit tey ak ëllëg moo ci dindi ba ma set wicc waaye ba noppi ràngal ma li nga xam ne moo di takkaayal ma ay ngëneelam taxliya taxliya booy jàng tas boobu xam nga ko mooy ndab lu tilim fokk bala nga cee def lu baax danga koy raxas ba mu set boo ko raxasee ba mu set nag man cee def li nga xam ne mooy ñam wu teey ba nit ñi man koo lekk kon jukko yoo xam ne taamuñ ko muy ay rasail yàllaa ko dindi ci moom ba noppi ràngal ko li nga xam ne mooy jukko yoo xam ne moom lañ taamu ca nit ka dégg nga maa hi rasail muxtil fadail loolu yonent bi Sëriñ Tuubaa ne du koy dindi mooy far saay-saay caay-caay waaye mooy kii joxe ngëneel ya balaa la lay jox ngëneel nag day dindi caay-caay ba noppi kon lillaahi ñeel na yàlla donc maa katabtu lépp loo xam ne bind naa ko xablu ci lu jiitu taxliya ci ak taxliya kal haali ni ki tay wal bëx da taxliya gannaaw ba ma ràññee li nga xam ne moo di ay ngënam gannaaw ba ma takkaayalee ak ngëneelam lépp daal dama koy jox yàlla lépp loo xam ne bind naa ko daal ndax moo defal taxliya tey ak ëllëg defal ma taxliya kon lépp dama koy jox yàlla moo xam lu ma mën a bind rek na ngeen xam ne dama koy jox sama borom subhanahu wa taala du ma bàyyi dara yàlla moomu may jox sama lépp la ko ñixal na ko moom dong dong mataa bi sama tuub wa jihaad yi ak sama jihaad wal buyoox ak sama njaay wal kullu te képp ci yii tudd muy tuub bi ak jihaad ji ak njaay gi xat sakkartu tudd na ko xablu ci lu jiitu saa suyon saa suyon mbir mu may borom ton xuja nee na suñ borom subhaanahu wa taala sama tuub moom rek la ñeel bu may tuub moom rek lay tuubal sama jihaad yëpp dama koy def ngir jëmmi yàlla ndax suñu borom moo digle di leen jihaad ngir jëmmi yàlla di leen jihaad yoonu yàlla seen alal ak seen bopp seen yëpp ngeen jël ko na nga ko joxe ci yoonu yàlla bu ngeen desee ci toolub xare rek na ngeen xam ne sahil ngeen mëltil ngeen aljana ngeen jëm ma tax sëriñ bi ne tuub bu ma koy def yàlla laa koy defal jihaad bu ma koy def yàlla laa koy defal wala si ne jaahadoo fii naa la nahdiyannahum subuluna wa inna laa la maal muslimin yàlla nee na kuy def ngir man di jihaad maa lay gindi teg la orienté la maanaam ci sama yoon wi nga xam ne mooy yoonu jub ndax yàlla dafa ànd ak way rafetal bu may jaayante itam yàlla rek lay jaayante ña jaayantoon sulhu Hudaybiya naam yonent bi lañ fa nekk doon waaye yàlla lañ doon jaayante dëgg-dëgg nag yàlla dëgg-dëgg njaayante yi yàlla lañ ko doon def inna la seen yu bàyyoona innama inna la seen yu bàyyoona ka innama yu bàyyoona laa parce que lu tax yëddullahi fawqa aydihim yonent yi ba mu tegee loxoom tegaalal sayidna Usmaan dégg nga ba mu tegee booba yàlla teg na ab loxoom kon loxob yàlla moo féetee kaw mboolem loxo yi donte nag duñ ko firee loxo kàttan nañ koy firee moo tax ma wal kula képp ci muy tuub ga ak njaa ak jihaat ji ak njaay ma yàlla sant na ko rek la bëgg wax ci lu jiitu saa su yoo mbir mu may borom toroxu ca loolee xadamtu ba mabbu naa ma banaahu a tabaxoon na ko kulla man képp koo xam ne jaxat dafa widdi yàlla xablu ci lu jiitu bisiri ci sekkereb xul huwa allahu ahad te mooy xul walaaw xul waxal yow yonent bi neel huwa moom ca dëgg-dëgg allahu yàlla ahad kenn rek la du ñaar nee na mabbu loo xam ne waaye tabaxoon na ko moo xam mu tabaxoon ko ci ndar fu ko mën a tabax Sénégal ndax nee na ba bañ mu yóbboo Ndar dama faa fekkoon ay tabax yoo xam ne dañ fa tabax ngir caaxaan waaye yëpp maa leen mab dégg nga xat ca dëgg-dëgg fa waltu jooyal naa amri samay mbir ilayhi jëmee ci yàlla taa ihaa mbir moom may aji topp ko li wàcc yi ngir jëmmam alkarim ji aji tedd jalla koog jalla koog màgg na waaye baa ihaa mbir moom may aji jaayanteeg moom moom sama borom subhanahu nee na jël naa sama mbir lépp joyal ko sama borom wëkkil ko yàlla ndax yàlla day gis na ay jaamam wa ufawidu amraya ila allah inna allaha basirun bil abad waaye neen jooyal gi ma jooyal sama mbir ngir topp yàlla dama ko def ngir jëmmam ja amul lenn lu ci distal nekk waaye nag jaayanteeg sama borom ne du ma xàcc mukk ci jooyal gi nga xam ne jooyal na ko sama lépp intaha dana jublu li xëyri naa daw jëm ci ku dul ñun ala daa mboolem noon wala muusiyaat ak mboolem seeni lor ya bilaa nihaayatin ci lu muy am yemukaay wuus naa te làq nanu ñun sëñ Tuubaa albaqiyaat yiw ya da way des loolu mooy albaqiyaat salaat loo xam ne daal du jeex mukk mooy subhaanallah walhamdulilah wala ilaha illa wala akbar te suñu borom waxoon ne moo gën almaal wal banoona ndax siinatul xayaatu dunia nee na albaqiyaat salaatu moo gën alal ak i doom ak lépp lu nekk ci adduna lu muy rafet rafet albaqiyaat salaatu moo ko gën moo ko féete kaw fuuf salaat moom day sax di des adduna di sax di des yowmal xiyam alal nag adduna la doom adduna la yem yëpp adduna rek la yem moom la yonent bi waxoon ne mooy ahabul kalaami ilallaahi maanam li yàlla gën a sopp ab jaam di ko wax bu xëyee fajar ba julli fajar ba julli suba mu koy wax ba ñett bi fenk la ca gën mooy subhaanallaahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kon loolu lu ci am am solo moo tax kon mu ne intaha dana jublu li xëyri naa jëm ci ku dul ñun ala daa noon yi wal muusiyaat ak lépp luy xeeti lor noonu ci boppam ak seeni lor ya danañ jublu di daw jëm ci feneen fu bokk ak ñun te bu ñuy daw bilaa ñuy aayatan ci lu dul ñuy arrêté ci lu dul ñuy am yemukaay wuus naa te làq na nuñ sëñ Tuuba yaat li nga xamee ne mooy yi way des ya maanaam yiw yi nga xam ne duñ jeex mukk te wutee nag alal ñu sëñ Tuubaa làq nañ ko ci saayir ak ci baatin kon gis nga ne lii yëpp bu koy wax rek dafay jéema wéyee aaye suñu borom jum naan wa ama bi nixmati rabbika fa hadis noonu defe naa waxoon na ko ci muqaddamatul am daa boo xam ne dafa toog rek saatagaay bañ ko laajee la muy saatagaay mu ne safirtu ndax wa bil alaayi inni muhaddisun bi kaw nii xadimal Mustafa wa huwa yaxfasu man sëñ Tuubaa kat tonuxu naa tonuxu naa tonuxu goo xam ne kenn xamu nu mu toll man sëñ Tuubaa la mu doon wut ci sama borom lépp lépp lépp dikkal na ma moo tax ni ngeen gis may bàkku yépp déedéet damay sant yàlla rek. ndax fokk man maa ñàkk a nettali xew li mu sama borom defal ndax heure bu ne moo may sàmmal boppam di ma aaral boppam yent yi dana jublu ilaa siwaana daw jëm ci kurun ñun attanasuxay lépp luy xëccoonteeg aduna mahal mujadalati ànd ko dagg sante ga laa nu nation te dit ñuy xëccoo nee ne kuy xëccoo duñu jublu te kuy dagg sante duñu jublu te ñun duñu xëccoo maanaam tey kuy xëccoo du ñëw ci ñun kuy dagg sant du ñëw ci ñun te ñun sax fa dëndul xëccoo far nag moom loolu ila siwaana yente yi tanaason mooy ku ñëw di ko def al muj mujaadalati nag mooy ki ñëw di ko def ba tey waaye nag laam nation moom dafa bëgg a seetal boppam moom nekkul ci moom dégg nga man na xéewee na alay naa ci ñun allahu yàlla bil mujaawara ca dëkkaaleeg moom lahoo ñeel na ko taala moom mi aj kawe dégg nga bi nabiyin ci darja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga jaawara ci ak dëkkaale nee na yàlla defal nañu xéewal ci mu jaawara xam nga loolu martoo mu kawe moo tax bi mu fa yegg itam ci la bind jawartu di wane ne yegg na ci mart moom dëkkaaleen nga boo xasee dëkkaaleeg ku yàq ta taxoo nga yonent bi ci ma xanaa saayir ak ci baatin faaraqu iblis wa jimal mafasidi wa bismillahi rahmani rahim laa samtu rasulullahi wa sallam ma xamaa mu nga yaayam ji rek moom da yeggoon soxna jaara xam nga soxna jaara mariama mooy jaamkatu yàlla waaye boo dégg ñu koy soxna jaaratullahi mooy dafa yegg ci maqama al mujaawara wax gis nga kon kooku moom yeneen la yeneen gënil la kon sëriñ bi ni fa yeggee la fa sox la fa yaayam ju tedd ji yegg muy soxna jaaratullaahi man a xéwee na alay na ci ñun allah yàlla bil mujaawara ci dëkkaale ga lafoo ñeel na ko taala moom mi aji bi nabiin ci darja yonente bi sallallahu alayhi wasallam jaawara ak dëkkaale yàlla mi nga xamee ne moo ñu xéwee ñi dëkkaale ak moom moom mi nga xam ne mooy aji kawe ji te mu may ñu ko lépp ci darja yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu kon xéewal la goo xam daf nu koo defal rek kon war nañu koo santal dégg nga dégg nga ndax ni mu man tamay ma ko noonu la dëkkaaleeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo na ko taala mu mi nu may xéewale ñu dëkkaaleeg moom noonu la ko may yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dëkkaaleeg moom ci waxtu ne kon sëriñ bi dafa dëkkaaleeg yonent bi yonent bi dafa dëkkaaleeg borom sëriñ bi dëkkaaleeg borom rabbi sama borom al ilahu mooy buur wana bi te yonent wasilati mooy ki dox sama diggante ak borom bi subhaanahu wa taala salaa yàlla na julli aleykum sa idan mbir moom muy aji dolli fa di diilati sama ngëneel sama borom mooy yàlla yonent bi nag du sama borom sama sëriñ la bi dox sama digganteeg sama borom rek yàlla yàlla julli ci moom waaye nag gannaaw bu mu jullee ci moom maa ngi ñaan sama borom mu dolli sama ngëneel ci waxtu wu nii ma doxtu tagg naa afdalal waraa ngën ci mbindeef fil baxri ci biir géej ga xablu lu jiitu bi maa tagg yoo xam ne ax jala gàccal na ku la baxri bépp géej tagg naa ngën ci mbindeef ba ma nekkee ci biir géej ga ca la jiitu nga xam ne kon xaside gi gannaaw géej gi la ko bindee moo tax moo tax mu ne tagg naa ngën ci ba ma nekkee ci biir géej ga ca la jiitu ba nekkee nee na tagg yoo xam ne bépp géej tagg yi maanaam gàccal nañ la géej loolu waxin la kii naa dara waaye borom xam-xam rek la jublu borom xam-xam yi nga xam ne dañoo géeju ci xam-xam ba mel ni géej ñoom ñëpp tagg yi gàccal na leen naa di diyante naa fil buxóori ci biir géej ya rabi sama borom biir kitaab bi ci alquran tanaajiyan diyante goo xam ne maxa far na anni ma wëlis ma kulla atab lépp lu yeddaange diyante nag sama borom ci biir alquran ba ma nekkee ci biir géej di communiquer ak moom diyante goo xam ne lépp loo xam ne nekkoon na ci man ñi koy tuddee baatab yeddaange sama borom ci la ko dindee ci man ba mu set wicc xalla ba wëlbatil na li jëme ci man al axyaana mboolem njàccaar ya sang su baax sa fil bu xóori ci biir géej ya man yàlla mi nga xamee ne xaada womat na lii jëmee ci man xablu ci lu jiit ba ma nekkee ca géej ga mu xóoral xuuri canu xuurul ay nii yàlla suñ borom mboolem koo xam ne dañ naan xol ba dafa njaccaar dafa am gis-gis ca jëmi borom subhanahu wa taala ay sang lañ ñoom ñëpp yàlla dafa maa wëlbatil seen xol ya ñi jàkkaarloo man ma di leen gis ak fu ñu mën a nekk yàlla mi ma defal loolu mooy buur bi nga xamee ne ba ma nekkee ca géej ga te jihaat ak noonu ya ci la womat mboolem canu xuurul ay nii may ma bàyyantu jaayante naa sayidal wara samba mbindeef yi xablu ci lu jiitu la daa taqaru bi fa sama tumuranke ba alasi mooy tumuranke ba nga xamee ne ataa ba teeyal na alxalada bél ga nee na jaayante naag sangu mbindeef yi ba ma nekkee ca géej ga damaa jaayantoon ak moom na duma ma xàcc mukk na saxaaba yi jaayantoon ak yonent bi ca sol Hudaybiya noonu laa jaayante ak yonent bi ci biir géej gi dem ca tukki ba ba ma nekkee ca tumuranke ba nga xam ne ma rek maa fa wéet waaye suñu borom daal di dalal li nga xam ne mooy sama xol ci waxtu ne foofu ma nekkoon wajaxtu jëmale naa lil Moustapha ci kañu tànn ka maa loo xamee ni min hu bàyyeekoo na fa moom lëxoo ñeel ko minal ajaa'ibi ci ay keemaan yo xam ne araani dana ma dana ma wanal dana ma wan fat lëxoo ngëneelam nee na jëmale naa ci yonent bi loo xam ne ay tagg la xam ne lépp la cay juddoo ay keemaan yoo xam ne day bàyyeekoo fa yonent bi sallallahu alayhi wa di ñëw ci man ma ma cee xamaale keemaanu yonent bi ak ngëneel yu ko yàlla jagleel ak fi ko yàlla teg fi tagg yi ma koy tagg rek ci laa xamee loolu moo tamit ne wajjax du jëmale naa lil Mustafa ca kañu tànn ka maa loo xamee ne lëkoo ñeel na ko min bu bàyyi ko fa moom minal ajaay bi ci ay keemaan araani yoo xam ne danaa ci gisee fat dafa ngëneelam maam daal la ma jëmale ci yonent bi dafa am lu ay keemaan yoo xam ne yonent bi da koy fiiñal muy bàyyi ko ci moom di ñëw ci man su ko defee nag ma xam dëgg-dëgg fi ko yàlla teg ak wajantu jëmale naa lil muxtaar ci kañu tànn ka xëndal bëri fa jéeri ja bax daru jox ya gannaaw sama dellu si ajala biri gën caa màgg li nga xamee ne moo di ak ak mbaax ñu ne jëmale naa ca kañu tànn ka ba ma nekkee fa jéeri ja gannaaw ba ma ñibsee nga xam ne léegi nag nekkatuma ci géej gi ñibsi naa jëmale naa ca moom la gën a màgg ci xeeti mbaax ci wax ju rafet ak jëfin wu rafet ak ci tàgg wu rafet ak ci julli gu rafet lépp jëmale naa ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam malaktuhu moom loo ko min kasasin li ko tàmbalee kasas li daksasin ba daksas fil bëri ci jiir gi mis la ma mada kem la nga xamee ne wëy na min jaysasin ca jaysa nee na moom loo naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko tàmbalee kasas te mooy 1320 ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci daksas mooy 1324 kon loolu gànnaar lu koy fekk ndax kasas ci la dem daksas itam daanaka at mu mu lay béy ko gànnaar wala dem ci yoon jolof kon lii gànnaar la ko fekk moo tax ne moom loo naa moo tax sax mu tuddee ko jéeri ji gis nga ndax gànnaar bokkul ci géej gi ci jéeri ji maanaam ci jéeri ci la nekk moo tax ma ne min jay si sin gëm ci tudd ndax jay si sin ci lañ ko génne woon yóbbu ko ci tukk ba 1895 léegi nag comme génn na ci tukki ba ba ñëw gànnaar ñu yóbbu ko ci tukki bi ñaareel bi ñu koy wax safarul xaraaj ndax tukki bee moom safarul xóoj la bi nag safarul xaraaj la léegi nag moo waral mu ne gannaaw ba nga xamee ne jeesi si wéy na nee moom loo naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yu nekk damay moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko tàmbalee mille trois cent vingt ci gàddaay gi ba ci ci gàddaay gi moom loo naa ko ci biir jiiri ji kem la nga xamee ne wéyoon na ci jeesitin la ma ko moom loo woon ci ay tagg ak julli delloo naa ko moom loo ko ci biir jiiri ji la ma ko joxoon ci biir géej gi delloo naa ko ko joxaat ci biir jiiri ji loolu bëgg wax mu ne naa jeytu di yente nag di yente nag moom fil bari ci biir jiiri ji wa fil bahri ak géej gi maan mboolem tammaha notal na li ñeel ma xeddaahu noon ba fiihima ci biit ñaar yooyu muy géej gi ak jéeri ji ne ne diggante naa sama borom mi nga xamee ne moo ma notal mboolem noon ba noon bi taxoon bañ génn ma ca tukki ba yóbbu ma ca tukki ba ca gabam dégg nga ci làmbar naa fexe bañ yóbbu ma fa nee ne diggante naa sama borom ba ma nekk ci biit géej gi ak géej gi yëpp yàlla mi nga xam ne moo ma notal noon boobu baaraka barkeelal na rëbbi sama borom fii xuróof yi samay xa yi yëpp wa maxaate far na jumlatama mboolem lépp loo xam ne lam yar dafa gërëmaloo gërëm gërëmaloo lun ma ko lii ñeel ma fa maxaata mu dal di faru dem sama borom de mboolem sama xaraf yëpp barkel na ko sama xasida yëpp bar barkel na ko lu ma bind lu ne rek yàlla def na ca barke waaye din na ci man lépp loo xam ne gërëmut ko ci man rek din na ko ci man moo tax ma ne wa maxaa far na jumlatama mboolem lépp loo xam ne lam yar dafa gërëmaloo gërëmut ko ci man lii ñeel ma fa maxaate mu dal di faru wakaana ta dolle wakaana ta dolle naa nekkal lii ñal ma wa radiya te gërëm na annii ci man kama maxaa comme ni nga xam ne moom la faree annii moolis ma ma radiya li nga xam ne mooy sama tawat yàlla xamal na ma heure bu ne daf may yokk sama xam-xam heure bu ne daf may dolle nekkal heure bu ne daf may dolle gërëm comme ni mu ci man lépp luy tawatu jëmm ak tawatu xol yëpp daxaa woo na ma mi xilaami samay xalima li xidmati rasul jëm ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo la woo mu ne kaw ni sama nekk xadiimoo doon liggéey katam bi man ca darajaay ka nga xamee ne bii man ca kàttanu ka nga xamee ne yéex boo dana may bisool li nga xam ne mooy laaj ba mooy pajuk aajo nee na samay xalima woo nañ ma ngir ma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalima yi ñoo ma woo ngir ma war a doon lan xadiimal Mustafa bu koy liggéeyal lépp maa ngi koy doonee nag ci kàttanu yàlla mi nga xam ne képp ku koy ñaan dana la may la nga koy laaj xasaa lii nag awaanu lin siraafi mooy njëlbeenu sama càkkuteef lil muraat jëm ci la ma tax a jóg muy la wakaana te nekkal na lii ñeel yàlla mi fee ba faw faatu wama ara wama rum loo xam ne sàkku naa ko ci moom yàlla araat mu dal di amee noonu mu dal di nammee ko noonu mu amee noonu nee fii may wax ak yéen nag lii mooy sama njëlbéen ak soppeeku na ngeen xam ne su fekkoon maa ngi yore ab laxab maa ngi jël laxab gi nak commencé tourner parce que ni jaar ci yoon bu bëgg a jaar moo tax ma ne lii nag mooy sama njëlbéenu soppeeku jëm ca la ma tax a jóg ndax yàlla kat nekkal na ma ci lépp lu may sàkku ci moom mu dal di ko mu dal di ma koy jox ma daal di ko amee noonu wàjjaxa jëmale na laaj ilaa siwaaye mu daw jëm ci kudul man abadan ba faw wa maa la te jéng na na moom yàlla li siwaaye mu jëm ci kudul man man lam yax bu daal képp koo xam ne jaamuwut ko yàlla jëmale na baatab laj fanweer ak ñett yooyu ma leen waxoon ne dama ko xaraamaloon ci sama bopp mu doon ay fruits yu neex ma ne duma ko lekk yàlla dàqu na ko mu daw jëm ci kudul man ba faw te képp koo xam ne nangutu jaamu borom bi subhaanahu wa taala yàlla jéngal na la doomu jublu mukk man sëñ Tuubaa kuy jaamu yàlla rek mooy ànd ak man moo may jublu waaye ku jaamul yàlla kooku moom du ma jublu mukk kon yàlla yàlla musal ci ñàkk jaamu borom bi subhanahu wa taala